jàngat ci diggante Balla Gaye Tapha Tine. diggante Balla Gaye Tapha am nañ ci mbetteel trop nag. mbetteel. waaw comme naka ban mbetteel. ndax amal nañ yaakaar ne Tapha moom day jàpp Balla rek daan. waaw waaye bi ndee ba ci lam daal ni nu lam ji liggéey daal bet nañ trop. Hmm. waaw. tey lam mu bett leen. si ne daan na ko première fois. daa jël avance bi ñu ne ko avance waroo koo jël mu ne maa ko jël maa jël sama édition. Hmm. maa ko jël maa ko xool jël ko. ñu foog ne bi mu ko jël teg na ko fu leer. Mm-hmm. ñu dem ba ci biir ñu mu ne Tapha ni mu toogee baaxut. Mm-hmm. léegi nag ñun itam ñu dem ba ci biir ñu foog ne Tapha bi muy jël war naa teg assuré loo xamante ne nii. Eh, eh, eh, war na teg ndam quoi. Mm-hmm. ndax revanche moom doo koy jëli moom waroo tëb rek jëlee ko xool. danga ko war a jëli ci xel ak xalaat. waaw ndax doo xoolee dem Tapha bi mu demee ci stade bi yóbbu dara ci stade bi lu na sax lu leer. waaye nañ ko nangoo ci géew bi dafa yomb ndam li nañ ko nangoo daal. dafa yomb mais dañoo gis ne ñu bëri dañuy wax ne mën a bëri moo si feeñ. da koo daan da koo duma ba pare daan ko. non mën a bëri moom la la ko Balla def. non mën mën a bëri moom man moom entraînement ma Tine du ko ko tardé. Hmm. waaye bu fekkee ci géej gi. Hmm. doo ko fa fekkee kenn dàqu koo bëree. waaye du ñëwee ci biir lam ji di tax du wane loolu man ba tey damaa jaaxal itam. foog ne Balla ñu bëri dañ naan Balla Gaye Tapha Tine ñemewuñ ko quoi. noonu moo feeñ démb. non bi moom dese damaa leer moom ñeme na ko ñeme ko dese waaye Tapha mën naa bëri Tapha nit dàq koo man xam naa ko non Tapha li koy jàpp ci biir géew bi la koy jàppee digganteem ak bala Gaye li koy laal ci biir géew bi la lan moo koy jàpp loolu lan non ci wàllu staff bi la musique bi Balla da koy dominer musique normal mais démb ñu bëri dañ ne musique feeñ na non musique feeñ na mystique feeñ na man bi ñu biñ leen ne kaa leen dugg si ci biir géew bi laa xam ne Tapha mi nekkatut biñ ne dugg si leen ci biir géew bi hmm. heure bi jot na ci laa xam ne Tapha mii nekkatut ndax mu gi fudu di attiré dee tiiree wu rek jëmale bu kenn xamul nga xam ne kii yaa quelque chose quoi. est-ce que yi mystique yi feeñ na ci biir géew. mystique bi na ci torop. mystique bi feeñ na ci torop torop torop dafa ay sëriñam xaw ma dañ koy nax xaw ma galaaj gi daal moo méngóo rek galaaj yi gaa yi daal waaye gaa yi daal ñoo ko gën a for galaaj moom. Ah, ah. na yokkaat affaire yi. ah li muy galaaj bi moom du fekkee daa jàppe ca kër ga. <laughs> caaxaar waru ko yàq ci biir géew bi waaye du jàppe ca kër ga te du ñëwee ci biir géew bi yàqu it amul saas quoi. ah xam nañ ne xeex nañ Tapha lu mu gën a mënee mooy xeex. Balla Gaye si la ko fekk duma ko. non Tapha xeexut ba mu daan Tapha xeexut bëriwut. Tapha kay neel moytu na ba nu daanu ñib si. dafa moytu waaw moytu na waaw moytu na waaye xeexuñu moom. looy waay looy conseillé Tapha Tine. Tapha Tine li ma koy conseillé. dama koy laaj sax du ma ko conseillé. Ah. dama ko daan Tapha doo nekkee ci euh, synthétique bi. Ah. di nga yëngale yëngale yëngal ñun ban béeg. Ah. waaye doo ñëwee ci biir géew bi luy téye yaram bi. doo ñëwee ci biir géew bi rek ñun confiance bu ñu ànda leen daal day xel di wàññi di wàññi ko baar bit bi soufflé. loolu laa jaaxal daal. loolu moo ma jaaxal. yow kan man Tapha Tine laa man Balla moo doon sama waaye damaa ñibbi. Balla moo doon sama waaye damaa ñibbi ba Tapha màggee damaa ñibbi. waaw te itam nag man rus na ma di ànd ak njaayatin di faral Tapha di faral Balla Gaye di wecc Tapha Tine. Tapha bu ne dama doon wàcc dem géej dem seetaani ko ba mu jiyee. Euh, gis nañ démb. Euh, force de sécurité bu doy waar ñëw dem si làmb ji mhm. état bi dafa àppal làmb léegi na heure yi vingt làmb dafay tas avant vingt heures mhm. euh, ñu gis démb ne làmb ji teel naa tas avant vingt heures yi taxaw nañ si arène si si si si biir arène si kii bi nan ko jàngatee si force sécurité boobu bi nit ñëwee baax na waaye foofu dinaa ci dellusiwaat ci Tafa hmm. Tafa dem bala dafa koos galaajam Tafa ñëw xëppoo galaajam temps bi bi ko nee temps bi rek temps bi da koo tiise ba li mu yor ci galaaj lépp da koo def léegi nag bala génnee galaajam dafa amatul lenn loo xaayaan sotti na te mu mag war nga yor biteel boo xaayanti ne nii sax doo gisatul la jaaxal nga dem raay ko ñëw del siwaat li balay sotti ko lépp dafa daa taxaw di ko xaar di wow amul lenn loo xaayante ne nii mën na koo sottiwaat loo a pare amul foofu mbër li ma wax ba arbitre bi suuf la ba ni ngeen di dem ñu ne mbiitaanoon sax da ngaa war a yor biteel boo xaayaan war nga koo raay waaye pa nga jeexal te itam lii bi nun ko waxati préparation mystique bi xaw ma dañ leen a xëptal xaw ma doo déggee ci média yi coow waru leen ki nga xaayal moo war mystique am mu ñëw ba ci biir lam ji di xeex waaw xeex ban génne ko am na ci mu jàppanteeg préparation mystique bala ngay bi saaru doo xoolee saaru teg xel la ban génne ko te moom moo ëpp doole ci Tapha doo xoolee lépp moom moo ko réservé kooku duñ la génne yow ñeneen yi ci des nu ñuy def kooku lu mën di am war naa mën a muñ loolu ba koos ko xam ne kii moo jege Tapha. ah gis na Tapha staff bi daa des. staff daa des daa carrément dafa des. staff bi des na boole ci la yàlla xam daal doy na moom musique bi man maa xam man musique daa méngoo rek yooyu gars yi mënumaa xam nu fa demee noonu daal. bon lamb dafay guddee tas. Hmm. gis nañ ne bii yoon amul. kon lii gars yi daf foogoon na ñoo ko tey di parce que gis nañ avant lamb après lamb Euh, agresseurs yi dañuy bëri nu mu gën a guddee agresseurs yi ñu ngi gën di agressé nit ñi moo tax état bi ne làmb dootul àgg lu mat lu dépassé loolu ànd naa ci. Hmm. waaw ku bëgg lu jub. Hmm. bëgg a teel dem sa kër bëgg a teel a sangu bëgg a teel a dallu. Hmm. heure bi état bi wax ànd naa ci foofu noonu mu ko calfi la. ku mën a bëre heure boobu bëre heure boobu ku mënta bëre heure boobu seet noo def. lam noonu la jamono yi maa ngay dën doon bëri nga gis jant bi muy nga gis tak seen tak ndeer yi. te teew dën di daan. loolu état bi def ànd naa ci ndax du timisee mënoo sécurité ñëpp waaye du bëccëg dara kam gee di nga mën a sécurité leen li leneen li ci des ñii ànd di leen ko mën a sécurité lan ngay tëjee li may maa ngi wax bawal bawal yi bu ñu jàpp itam bu nu je bu nu ba nu découragé nan jàpp te itam taf Moustapha te lii ma lay wax Moustapha laa koy wax bala ngay dugaat ci combat na xool biir géew bi yow sa galaaj nu mu fay doxee waaye pa ñun son nañ ci ñëw ba ci biir géew bi ñu la éliminer ci wàllu mystique loolu sonn nañ ci ndax fi mu toll nii combat bii nga gis nii mënoo commenter ak nit ñi daal dañ da ngay féetewoo dañ ñoo mën rek dañ ñoo mën daan ñu loolu ngay féetewoo ndax dañ koo jàpp dañ koo jàpp dañ koo jàpp du fekkee benn yoon la sax mën dañ la koo nangul waaye sax suñu ne dañ kenn mënu kenn man mii di wax nii am na ñoo xaay dañ maa oo biig ba son waaye dama leen a jeexalal wax bi da ngeen ñoo mën daan ñu ndax xam naa ne ma ñimeetuma wax dañ ñoo jàpp da ngeen sonn ci defet yi daal waaw jeex na dañ koo jàpp dañ koo jàpp ji dañ cee sonn jàpp la daan la dañ cee sonn nee ko na day dugg ci kër yu baax yi daal. Jamiya Ahmed Jamiya. Ahmed Jamiya waaw. waaleykum salaam waaw. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay jàmbaar ñu ngi lay fay a baax. bi bu diggante Balla bi nee na trop macha allah. xam nga di féliciter Alburax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo organisé affaire bi. di wax ni combat bi nee na trop trop trop trop mention spéciale quoi. waaw combat bi nee na trop. trop waaw sama mbër lañ daan def. defet bi quoi defet bi la làmb ji. non waaw làmb ji moom. organisation bi jaar na yoon trop trop trop trop. Mm, mm. waaw ndax làmb ji am na sécurité. Mm. ba pare amul benn yoon boo xam ne làmb ji débordé na quoi. Euh, diggante Balla Gaye ak Tapha Tine ci biir biir combat bi noo ko jàngatee daal ci bëree waaw waaw non bu fekkee comme ci biir làmb ji. ambiance bi ñaari mbër yëpp ku ci nekk ambiance na ci côté am quoi. ambiance bi neex na trop trop trop trop. mais xam nga yàlla suñu borom moom euh, jàmm ak pexam yàlla ak dogaram waaw ñun suñu sañoon xam nga Tapha Tine mooy suñu mbër mu daan waaw mais lamb ji dafa ji dafa comme lamb ji da cee bëri yu bëri yoo xam ne da cee xew barke alxuraan dafa cee bëri yu yoo xam ne ñun yow yow xam naa non xam nga tey boo fi nekkee di wax hmm. amaana na yi mën nañu wax ne kii wax ni gëmul yàlla quoi waaw mais ñun xam nga lamb ji xam nga ji hmm. Euh, gars yi man mun naa ni gars yi dañoo xeex ak doole trop. torop torop cadre mystiquement dañoo doole torop torop Tapha Tine ku ko xam xam ne jàmbaar la. yow gëm nga ne combat bi mystique dafay fay. torop torop barke alxuraan. mais Balla Gaye dañoo gis ne da koo ba pare da daan ko. waaw mais xam nga la ñuy gis. comme li am ci biir làmb ji quoi arbitre sëf la nañ ñu daw xeex. waaw kor ko gaañ ko après ñu ñëwaat Balla daan ko. gars yi la ñuy gis quoi loolu kese. mais door lamb ji li am ci lamb ji yëpp gars yi gisuñu ko waaw wallahi azim surtout veille combat bi bi ñu combat bi suba la ku si nekk da ngaa dem préparé ñu fay la xam nga xam nga tey benn tey benn affaire bu ndaw laa lay wax hmm. tafaatin du ma ni tafaatin mbëru bawol bawol yëpp laay wax hmm. amuñ jàppale rawatina barke alxuraan mbëru bawol bawol yëpp amuñ jàppale tey tafaatin liñ gis ne liñ ko fayoon ci ci Balla Gaye bu jëloon lépp yóbbu ko ci sëriñ taxul mu jàpp Balla Gaye ah. billaahi wallaahi wa taala waaw ndax Tapha Tine mun naa ni Balla Gaye ñaar ñu koy jàppale rek mën nañoo fay Tapha Tine hmm. waaw. man de damaa est-ce que ñu bëri dañoo gëm ne làmb ji daal koy wax ñëpp fan si Balla Gaye ñoo koy wax mais làmb ji mystique da cee am ñun defet bi ah man boog man hmm. pour dire vrai man defet bi ma quoi non non ma ndax damaa xam door damaa xam li li xew ci làmb ji dama ko xam moo tax dara métti wu ma ci yàlla xam na ko hmm. waaw ndax ndax ndax man mii di wax ak yow bi ne làmb ji suba laay trois yi bëri ba maa yoon bari Serigne Sall li fa am yëpp gis naa ko mooy mooy ñun déggoo xam nga ñun bu ñun bëgg ñoo ba pare di ñànke non affaire waaw mais en tout cas daal làmb la quoi hmm. te mun naa gën a rafet ah. waaw mun naa gën a rafet man tey Tafatine du ma ko balaa mee ko wax hmm. man lii béyatu ma man Tafatine bu daanoon Balla Gaye hmm. kon su boobaa man ma tam Tafatine dëmm wallahi alazim barkaar xuraanu karim ah dañ ne daal mën a bëri daal mooy si sëñ daal non la Mm. Balla Gaye ndaanaan la loolu ñun nangul lañu ko mm. mais Balla Gaye bi tax ñu doon wax naan champion la ndaanaan la du Balla Gaye mii Balla Gaye démb néew la doon bëreel ci kaddu gaa yi gaa yi lañu bàyyi ci kaddu gi quoi mais Balla Gaye démb néew bu taxaw la doon bëreel néew néew bu taxaw nii rek la doon bëreel barke Alxuraan Balla Gaye démb déggoo li ma la wax néew bu taxaw rek la doon bëreel néew bu taxaw nii rek la doon bëreel kese ah, Tapha Tine ñëpp xam nañu koor mooy xeexam koor la waaw moo tax am loo xam ne ñun dañ ci détaillé quoi ñun xam nañ lépp ah. maam man man benn ma ma damay man damay lancé benn message bu ndaw rek hmm. muy bool bool yi quoi bool bool yi nga xam dañoo bëgg Tapha Tine te yàlla rek tax hmm. di ko supporté te yàlla rek tax hmm. nañ nañ gën a vigilant waat quoi nañ gën gëm gën a jàppale waat seen mbër ñu xam ne làmb nii la quoi démb ñun mënuñoo démb ñun mu mënuñoo wax wax wax ba am waaw mënu nekk démb ñun mënuñoon démb ñun mënuñoon wax wax wax wax ba am ndam démb loolu mënu woon nekk waaw mm. tey noo gisee làmb ji jëm force sécurité bi état bi wàccee ko ñu ne élément bi bi yeeg ñëpp a ngi waaw xam nga sànq wax naa la ko si benn waxtu nag na bu jotee nañ waaw mais xam nga loolu loolu man dama ciy ànd sax. pour dire vrai lamb moom. làmb moom làmb làmb dëgg la même bu fekkee kenn du ko jàppal heure bu muy tas tamit. Mm. mais boo gisee état bi def loolu. Mm. c'est parce que comme pour pour sécurité askan bi la quoi. te c'est normal te te gis nga waa CNG. ak waa Alu Làmb lu ñu def ñoom la neex. te démb démb démb lamb ji démb. Mm. vingt heures la jeex. kon ñoom lu leen comme ñoom lu ñu def rek ñoom la neex quoi. Mm. lañ gën a organiser waat. gën a jàppale waat amateur surtout amateur yi daa am amateur yoo xam dañ ñibbi fu sore sore yi dañuy bëri waaw bu fekkee ne dafa guddi loolu moo tax état bi jël ay moo tax moo tax moo tax lamb nag saa bu teel a commencé mm. teel a tas yooyu yëpp dina wàññeeku noo gisee Aziz Ndiaye mu taxawoon ne tontu état bi na lamb ji mënut a tas dix-neuf Baye Ndiaye Baye Ndiaye non Baye loolu yëpp ay statistiques la woon rek Hmm. loolu yëpp ay affaire yi mu doon teg la rek. Ah. ñun xam nañ lépp. mais état kenn du ko xam ne da doon menacer état. Ah. ñun xam nañ lépp. Ah. waaw xam nañ lépp ñoom ñoom ñoom da leen a arrangé ñoom ñoom li ñu def ci stade bi yëpp. Hmm. stade bi waroon a guddee bu guddoon rek day yàqu. barke Serigne Touba ñun xam nañ lépp yàlla baax na quoi. waaw baax na quoi jërëjëf. looy looy ban message ngay jox Fatim. non am di moom am di mun naa ne suñu papa la suñu kilifa la suñu lépp la. waaw di mu bañ a découragé rek mu xam ne làmb nii la quoi hmm. mu demaat waajaat quoi demaat waajaat rek xam ne ñun moom ñu ngi ci ginnaawam ñun moom teel lañ ko gën a jàpp ko gën a fonk te teel lañ koy gën a jàppale ci làmbam di moom mu dem waajaat waaw ñun déggoo li ma la amuñ benn yoon bu ñu découragé ci moom ñun 104 dimanche muy daanu a fois ñun moom la ñuy topp waaw ñun moom la ñuy topp quoi li nekk si kanamam dafa mel moom wax dëgg man awma lu may wax ci moom quoi. rek kooku am lu mu am baax na yàlla ko yàlla defal jàmm rek. ah am seen daan na ko ñaari yoon. yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla ko moom barke Serigne Touba. Ah, non non non non non non jërëjëf. <laughs> jërëjëf non non